a jiite COJER bokk ci benn Bokk Yaakaar wala sax ci APR sëñ bi Moussa ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci sa émission tête à tête. Euh, jërëjëf Fatima maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu euh, kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci ci ci kër gi. Euh, di la ziar di la remercier bu baax ci invitation bi nga xamante ne tey euh, defal nga ma ko di ñaan yàlla rek waxtaan bi ñuy amal ni mu amal njëriñ lool sénégalais yi mu ngoog gis ngeen ko mbokku internet wala mbokku spectateur yi mu nekk nak Moussa Sow du président de la convergence des jeunes républicaines bokk ci APR mom nak lañu nara euh, nar ap seq ab waxtaan yenn ci ay ponk jëm ci walum actualité euh, sëñ bi Moussa waxna ko légui émission bi xam nga ko tête à tête tête à tête nag ko dégg euh, muy émission bi nga xamante mo moo jamono ñi ci waxtaanee nak lépp lu jëm ci walum politique bokku na ci nak ci point bi njëkk bi nga xamante mom lañu tambalé ngir waxtaanee ko muy euh, njiitu réew bu Sénégal di Macky Sall gannaaw nak ba mu téwé fofé ci New York ñi gis ni mom le chef de l'État Macky Sall dal dañ ko daldi di euh, euh, ñeneen ñi nga xamantene aussi dañ koy jàppal tank bokku na ci ki di cour Macky de honorable député fofé ci Assemblée nationale momit ñi gis ni sax dañ ko daldi humilier fofé ci New York Moussa sa réaction bu njëkk ci li ni mel mu melni le Sénégal qui se donne un spectacle buñ ko mënee duppee nonu fofé ci bitim réew rawatina ci New York lan moy sa réaction bu ñëk ci situation bi nga xamantene ne euh, nañu ko niki barki bërki fofé ci New York avec les Sénégalais de la diaspora euh, waaw Fatima jërëjëf ci question bu am am solo bobu xew-xewu jamono la actualité politique la mais japp naa ne nekkul lenn loo xamante lu bees la ci landerneau politique bi wala lu bees la ci président ci njiitu réew président de la république mhm. euh, nous nous rappelons juste que euh, président yi fi jaar ñu ci bari dund nañ lu mel ni mhm. politique la c'est de bonne guerre mhm. euh, lu waay xam da koy def pour que mu yàqal moromam mais dama koy ñaawlu fi ma koy ñaawloo mooy fi nga xamante ne foofu la ñu bëri daje ñoo xamante ne dañu war a jaay suñu image réew ñenn ñi peut-être amuñu esprit yenn yenn yenn yenn gis-gis yu sore yi ñoom pour ñoom rek euh, fu ñu mën a yàqalee moro moromam ci politique rek dañ ko war a def mais nee naa la nekkul lu bees mais dañ koy ñaawlu bu baax nag mais leneen li aussi remarqué naa le euh, nit ñi waxuñu trop ci mobilisation bi nga xamante ne sénégalais yi fa nekk aussi amal nañ ko ngir teertu njiitu réew ma njiitu réew mii di président Macky te jàpp naa ne mobilisation boobu sax moo gën a bari moo gën a mag fuuf mais nit ñi waxuñ ci Euh, souvent nag comme di dit les les journalistes parle ne pas des trains qui arrivent mm-hmm. loolu <laughs> dañ leen koy nangul mm-hmm. mais mobilisation la contre mobilisation te jàpp nañ ne ñi nga xamante ne mobilisé wu nañ ngir tatagal président de la république ak yiir ko ñoo ëpp fuuf ñi nga xamante ne peut-être ay opposants lañ ñi nga xamante ne peut-être jàpp nañ ne bu ñu waxee li ñu war a wax foofu dina am effet ci doxalinu réew mi fii au Sénégal. Mhm. jàpp naa ne aussi ñooñu euh, ñu ci bari ni ñoo xamante ne peut-être dañoo am problème ci seen dund xam nga boo nekkee bitim réew am na ñoo xam ne amuñu ay këyit. Mhm. seen xol day jeex tellement que dañ jàpp ne. peut-être njiitu réew mi moo leen ko teg wala réew mi gouvernement moo leen ko teg mhm. mais loolu yëpp ñu boole ko mu doon see li nga xamante ne moo leen naqari ba tax ñuy def yenn yi mais jàpp naa ne kuy daan dooleem euh, am liggéeyam euh, di xëy di wàcc di gont di wàcc kooku am na leneen lu mu war a def lu dul nekk ci mbedd New York yi di di yuuxu wala di di di di jéem a buntu xatal président de la république te aussi nit ñi nañ nañ xam ne fi nga xamante ne foofu la opposants yi doon def seen manifestation doon amal seen manifestation sore na lool ak fi nga xamante ne foofu la président nekk mais léeg-léeg ay manipulation la ñuy gis ñu jël image yële ak image yi ñu jéem ko méngale mais sore na moo ngi mel ne tey ji njiitum réew bu jógee feneen ñëw fii nekk King Fahd Palace ben des opposants yi place de la nation la place de l'obélisque qui manifester Nous, ne lay xaw mhm. mais nous avons ne rek euh, ça c'est un euh, deuxièmement aussi mobilisation la contre mobilisation c'est la démocratie peut-être qui s'exprime. Mhm. mais aussi mobilisation bi amal am solo lol mo gëna bari lol mhm. contrairement à ce qu'on a vu quelques personnes ñi ñi nga xamantene ne ngi doon ñaxtu ci riiw New York yi wuñu mais def nañ bruit c'est de bonne guerre. Mhm.

ñi dem ba ci biir euh, réewu jàmbur di fa yebbi seen boolu jàmbat. bon gëw ma ne bañal naa bañal nañ leen ko seen biir réew parce que fii boo xoolee boo jàppee cent manifestation yoo jàpp xamal ne quatre vingt dix pour cent yi wala quatre vingt dix yi autorisé nañ ko. deux yi kese lañ ci dul autorisé te loolu c'est des éléments d'appréciation yu préfet yoo xam ne aw moo ko yow amoo ko keneen amu ko mm. loolu nañ ko nangul les autorités administratives mm-hmm. leneen li ma ci mën a teg mooy nekk Euh, bu fekkente ne tey euh, njiitu réew bu mel ne président Macky Sall Comment ne desalul dara sénégalais yi euh, c'est-à-dire lépp luñ ko fale woon daanaka nekk na ci au niveau du comportement c'est un c'est un président exemplaire son leadership est chanté de partout mhm. il est pratiquement consacré partout dans le monde bu faites ne liggéey ci mim réew liggéey na ko fi mën nañ ci teg suñuy gët te mën nañ ko làmb it ko lamb daj eh, rew mi 2012 biñ koy jël dafa am fum mu en terme de développement tay ji am fuñ ko yob fenen fu gëna am solo en terme de développement lolou wax deug yalla bu fekkente ni nit ñi mënuñu accueillir président de la république tatagal ko remercier ko féliciter ko ci liggéey bi muy def ci rew mi woruñu ko to lenen mm-hmm. man loolu la japp mm-hmm. te gëm ne fi kenn buntu xatul kenn ci mim rew peut-être yow loolu yow yaa ko gis mais amna na ñu nga xamantene c'est le contraire lañu wax ou bien lenen sax lañu ñu ndax té gis nañu wax nga ko légui bu fekkante né euh, ci 90 des manifestations yi nga xamantene ne ci kujé gi ñu koy amal au niveau du préfet de Dakar yéen yi préfet daf leen ko gantal té yéen ñi nga xamantene ne fété ci pouvoir bi gis nañu né yéen nga amal sen manifestation comme il faut diko amal ci yenn ci institution publique ba ci palais de la République té kenn terewu leen ko mais bu fekkente ne ku jéggi ñoom lañuy ñuy tere manifestation yi aussi. Mm, non giseewu ko ni nga ko waxee parce que ñun aussi euh, comme ñeneen ñi ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Mm. ñun léeg-léeg suñu manifestation suñu biir siège lañ koy amal wala feneen ak feneen mm, contrairement à certains ñoo xamante ne à chaque fois bu ñu génnee dañuy toj wala ñu yàq wala ñu lakk donc loolu bokkul ak démocratie. loolu wax deug yalla bu fekkente ne nit ki dafa génn pour yàq dafa génn pour obstruer à la circulation euh, des biens et des personnes mais lolu à la kulli al état da ci jël ndogal lolu mo xew fum toll ni parce que désordre nak wax deug yalla baxul cim réew anarchie encore une fois baaxul ci réew réew mu mu mënte di doon mhm. mais ku jéggi yoon nag ñu tegaat la ci yoon bi rek et puis le Sénégal continue sa marche mhm. man noonu laa ko gisee mhm. te jàpp naa ne même réew démocratie am na fi liberté individuelle et ñoo ngi koy exercer bu baax a baax démocratie am na fi peut-être yow sa conviction la mais lu ñu jàpp mooy deux poids deux mesures yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku euh, sur la démocratie sénégalaise hmm, kan moo ko jàpp yow Fatima <laughs> yow yaa ko jàpp walla man mënumaa jàpp loolu te gëm naa ne sénégalais yu ëpp jàppuñu loolu. parce que Sénégal dafa nekk réew moo xamante ne wax dëgg yàlla exemple la ci réew yu bëri yi nga xamante ne bokk nekk nañ ci non seulement ci sous-région bi. Mhm. mais aussi dans le monde. parce que nag am na loo xamante ne yow mën nga ma ko seede keneen mën na ma ko seede Sénégal fu mu toll nii Sénégal réew réewum jàmm la Sénégal réew mu am démocratie la. te président de la république am na fu mu ko fekk en terme de démocratie mais aussi am na fu mu ko yóbbu. amna na ci dolli lu bare bare si on parle du bilan matériel les gens les gens y a pas y a pas photo au fait y a pas débat président def na fi lim fi wara def liguey na fi liguey bu yanja yanji ñep tek nañ ci seen i gët. Mmh. tey bo boo le train express régional euh, ñep xam nañ ne c'est un excellent projet te pourtant bi koy président di di di tëral di def ci début ba. ñu bëri dañ jàppoon ne c'est un projet utopique du am et cetera mais tey ji am na am na ñu ne woon sax train bi bu demee dellusi si sant tuñu seen sant pourtant ñoo ñoo ngi ci ñoo ci réew mi. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne tey mosuñoo xalaat ne dinañ mën a def autoroute diggante Dakar ba Touba pourtant am na te loolu yëpp président la République moo ko def tey ji bu ñu arrêté woon terre bi rek en vingt quatre heures seulement. Mm-hmm. pendant vingt quatre heures mais les sénégalais ñaata ñi sénégalais ñooy dund jafe-jafe su boobaa. Si nous arrêté l'autoroute 24 heures pendant 24 heures seulement imaginez les difficultés qu'on aura à se déplacer donc le eh, président de la république lu a eh, ak lu rafet rek sénégalais mhm. donc il faut fekkente eh, démocratie la wax ci réew war président de la république di mhm. Macky mhm. D'accord, d'accord. d' accord ba tey dañuy C'est une émission euh, tête à tête wax nga ko léegi TER BRT mu nekk ay projets yi nga xamante financé par des centaines de euh, milliards mais euh, gisoo aussi peut être TER BRT qui mënu collègue. les priorités sont ailleurs est ce que nous avons li nga xamante ne moom xaar chef de l'État Macky Sall que ay TER ak BRT. non Fatima Fatima sur le plan social.